màggal gi ñuy fàttalikoo sëriñ Mouhamadou Moustapha Fallilou Mbacké ñu jàpp ko amal ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum septembre bi ñu nekk loolu nag tax ba comité d'organisation bi nga xam ne ñoom ñoo gàlloo lépp lu jëm ci saytu googu lee màggal nag amaloon ab CDD ci sous préfecture bu Mbacké ci njiitul sous préfet di Mamadou Lamine Mané ginnaaw ndaje ma nag ki nga xam ne nii moom moo di coordonnateur boobu lee màggal di sëriñ Modou xari Mbacké mu ngay dikkaat ci jafe-jafe yi nga xam ni dëkk bi leen di xayra ma ngi koy jànkonteel Modou Moustapha Fallilou ñi fay defee màggal gi ñun nag gisuñu ci suñu bopp wax dëgg yàlla bëri na lu fa manqué ndax bokk na ci quartier yi gën a lëndëm bokk na it ci quartier yi xamante ne bi moo gën a ñàkk sécurité moom ñëpp xam nañ ko bokk na it ci quartier yi gën ñàkkum ndox loolu lépp nag jiital nañ ko wax nañ leen ko léegi nag jël nañ ci engagement ñu ngi toog di leen xaar ba xam dinañ ko def wala du li nga xam ne ni moom moo di solos bis boobule màggalu sëriñ Modou Bousso Dieng muy fësale daal ngërëm li nga xam ne ni sëriñ Modou amoon na ko ci sëriñ Fallilou Mbacké bis boobule la ñuy fàttalikoo te ñu ngi ko dooroon sax mooy tawub Cheikh Mouhamadul Fadal moo wuutu woon Serigne Fallou 1968 bi fi Serigne Fallou jógee moo ko wuut doon ab xalifaam nekk fi ba 2000 la fi jóge doonoon koo xamante ne bi yaakaar naa ne doonatul ku ñuy présenté ci réew mi ak ci bitim réew ñëpp ko xam bis bi ñu koy wooteel nag bis la boo xam ne bisub ngërëm la ngërëm lu mu amoon ci Serigne Touba ndax bis bi boo koy jàngat day tolloog bis bi ñu juute ubbi woon jumaay tubaa ci la Serigne Fallou woowoon Serigne Modou ne ko kat am na am nga ngërëm loo xam ne tey ci man ndax jumaa ji bañ ko euh, wootee Serigne Fallou da ko woo daal ko ci def jëwrin mu sañc ay dëkk yoo xamante ne bii da daan def lu mu fa bay bu mbay ma ñoree mu jël mbay ma ak dugub ja ak fas ya ak ña ko bayoon jëbbal Serigne Fallou wutiwaat yeneen bi jumaa ji àggee nag Serigne Fallou ne ko jox nga ma ci jumaa ji lu toll ni ab sooroor di ma fi jox bu ma ko doon nattale toll ni na ab sooroor ma bëggoon nag nga xool soral yi bu la ci neex nga féetewoo ko ba nga xam ne saa yoo ko rombee nga xam ne lii sa jëfa sëñ Modou ne ko tànn naa soral bi féeteeg yow mu daal di ne ko xanaa rafetaay bi ci nekk tax mu ne ko déedéet lu féeteeg yow ma gënal lu féetewut ak yow bis boobu nag sëñ bi ne am na ci mbégte moo xamante ne bi yàlla rek la koy seedeel rëy ci njaboot gi moo tax ñu fi daje di ko fàttaliku at mu jot at bi mi ngi doon euh, mi ngi doon le 24 septembre incha allah waaye lu ko jiitu dafa am da dafa am ay petit fils mooy sëti Serigne Modou conférence bi ñuy def chaque année boobu moom mu ngi ko def le 23 dimanche lay dajal incha allah màggal gi ñu ngi ko tàmbali 2004 boobu léegi chaque année dinañ ko def.